génn na génn na boo koy gis ngeen moom yor ticket bi noonu ticket consultation bi la yor dafa dugg noonu ticket consultation bi dafa dugg rek daanu dafa ubbi porte rek daanu monocopie Polo teke, Tala teke, Allah kantan, Annabi kantan, ne udit do udit, hakude ne gidi ki don ko jinna, ki don ko jinna. Atake, ambrose, atake, ambrose, atake, ambrose jinna, ambrose, ambrose, ambrose, ambrose. Ambrose. nous la kan. jënd na ko gëm. toloo tegee kalaa tegee allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden ɗiti ki ton itisaya boloya saya wonande allah siginande allahu huɗo allahu saman an fayu jeya an fayu batel gorjinna sojinna umde konoyalla nabi yalla nabi dure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasa samruji samsa samsa makon bi tolote ge talate ge allah kanta annabi kanta ɓe utti ɗo utti hakkude leññiti kiton kodjenna wono ko be tolote ge talate ge allah kanta annabi kanta ɗe utti ɗo utti hakkude leññiti kiton kodjenna wono ko be tolote ge talate ge allah jinna mono ko bi tolo teke tala teke allah kantan annabi kantan jinna atake aprose atake aprose atake aprose jinna jinna jinna hadamu jinna man yeewu jinna yeewal leen ma ko yeewal leen ma ko dafa dugg rek daal dafa dugg rek daal yeew leen ko jinna yeew leen ko yeew leen ko yeew leen ko yeewal leen ma ko dafa dugg rek daal dafa dugg daal yeew leen ko génne leen ko yeewal kii pour ñu xam koo kàlla dafa dugg daal dafa dugg rek daal si nga ticket bi nga yor si nga ticket bi ci loxo bi dafa dugg rek daal si ngeen ko ticket noonu dafa dugg rek daal foog nga jàkkaarloo man rek mu daal attaqué approché jéem approché approché children will not go be, will not take care, cannot take care, Allah can't. And then we can't do it. How could they need it? You don't call children. Will not go be, will not take care, cannot take care, Allah can't. And then we can't. How could they need it? You don't call children. Desire. Follow your desire. Will not Allah. Signal to Allah. hulunta Allah sakinatu Allah hulunta Allah sakinatu Allah hulu Allah hulu Allah samad alfaaji baati kurcinna socinna ɓoyde kono yalla nabi anna nabi ɓure ɓure de socinna so socinna kisi kasa koye kasa kisi kasa koye kase koye kase samse wannan Allah atake jinna atake atake atake atake hapurusi atake hapurusi atake hapurusi atake hapurusi haɗaya nan yamma atake jinna wana ko be jinai masala na kora mas kora mas kora mas kora masala na kora jinai wana ko be toloteke talateke Allah kanta annabi kanta Allah'ın kantat, annabi kantat, Allah'ın kantat, annabi kantat, Allah'ın kantat, annabi kantat. Ni uti, tawuti, hakuna mengi tiki, kidon kodiyen, kiti saraya. Casa, Casa, Salsa. jiitu kii si kaasa kii si kaasa kii si kaasa si lay samaruushi samshi samaruushi samshi samaruushi samaruushi jinna samsi samaruushi samshi samaruushi monokobi tolotege talatege allan kanta allan kanta allan kanta ley ti dow ti jinne yi dafa dugg rek jàkkaarloo man rek mu daal waaw dafa dugg jàkkaarloo ak la xalif général bi daal dafa dugg dafa dugg jàkkaarloo ak man rek daal dafa jàkkaarloo ak man rek xalal waaye yow la kan yow la kan yow Dakar dafa dugg jàkkaarloo man daal yow Dakar yëkkati leen ko mu jóg na jóg yëkkati leen ko mu jóg na jóg na jóg yëkkati leen ko yëkkati leen ko mu jóg na jóg na jóg na jóg na jóg jàkkaarloo man na jóg jinne yëkkati leen ko mu jóg na jóg forcé ab na jóg jóg na jóg jóg jóg jóg yëkkati leen ko mu jóg génne na jóg yëkkati leen ko mu jóg jóg jóg na jóg na jóg na jóg jóg jóg na jóg yëkkati leen ko mu jóg génne na jóg na jóg na jóg yëkkati leen ko mu jóg mu ne maa ngi koy yow la kaaka c'est yow la kaaka yow la la kaaka yow la kaaka yow la kaaka moom la personne ah ah nee na bu ma ko jege nee na moom la personne kon am na ku nekk ci moom c'est kii moom rek moo ñëw ah moom kese la gis ngeen gis ngeen nee moom nee moom la personne xam nga ne jinne moo nekk ci moom dafa dugg sama nekk rek daal dafa dugg rek daal waaw. dafa dugg démb la fi ñëw bopp bi mu ne day métti mu ñibbi. démb mu bi day métti mu ñibbi. ñibbi waaw. aha boobu jinne bi moo nekkoon ci moom léegi dama bëgg ngeen attaqué ko ñu duma ko ñu wax ñu xam moom la kan jinne. attaqué attaqué jinne attaqué jinne attaqué Hamza Moulay Hamza. numéro un Moulay Thierno Sow Jinna attaqué ma dama bëgg ñu yëngal ko mu sonal ko mu wax moom la kaw Jinna attaqué attaqué Jinna Hamza Hamza Hamza Moulay Jinna Hamza Hamza Hamza Hamza Jinna yëkkati ko mu jóg Hamza sa ko mu jóg lu jóg Hamza Hamza lu jóg lu jóg yëkkati ko Jinna lu jóg Hamza lu jóg lu jóg yëkkati ko gis ngeen nu mu ràññee ay gis ngeen nu muy jaxase sama néeg jën xoj dama bëgg ñu xoj xoj yi ne xoj xoj jën najaax najaax najaax xoj xoj xoj xoj xoj ñaari loxo ci baat xoj xoj ci xoj xoj xoj xoj xoj Aplausos, aplausos, aplausos. approché jinne approché approché jinne jinne mooy na wër na wër na wër xool xool xool na wër na wër na wër na wër tuur kaar tuur ne tuur ne eh kaay kaay xëcc maquette bi balaa muy wàcc ci maquette bi tuur ne jinne na wër na wër na wër nañ leen jinne yeew leen yeew leen ko attaqué leen ko attaqué leen ko yóoxu leen ko jinne aha ronu leen ko ronu leen ko ronu leen ko ronu leen ko ronu leen ko ronu leen ko ronu ronu ronu ronu ci ronu leen ko ronu leen ko ronu leen ko ci ronu leen ko ronu leen ko ronu leen ko ronu leen ko ci ronu leen ko na tuuti na tuuti na tuuti na tuuti na tuuti na tuuti laxasu leen ak moom laxasu leen ak moom laxasu leen ko laxasu leen ko. bokk ci jinne bi moo ngi dégagé benn odeur jinne baa ngi dégagé am na odeur bu muy dégagé. odeur bu muy dégagé. dama bëgg ngeen toroxal ko moom jinne bi.

frappé nga ne tu es fatigué man de man commencé bu ma sax mu ne je suis fatigué maintenant il dit il est fatigué moi je n'ai pas il dit il est fatigué maintenant attaquer les jeunes attaquer jeunes attaquer attaquer attaquer attaquer jeunes attaquer attaquer attaquer kiti saya bolo ya saya unati Allah sallallahu qul huwallahu samad al-fatih al-fatih sama ruusi Samson sama ruusi Samson sama ruusi yow leen ko xàppee ma nangee ma xàppee ma ci naan xoj leen ko junne xoj leen ko xoj xoj xoj xoj xoj xoj leen ko xoj leen ko junne c'est kii tu es fatigué nee na sonn na man démarré bu ma sangee sonn Jean Moulin qui yow la kat comment tu t'appelles c'est qui c'est qui hey c'est qui ah nee na André la tudd jinne bi André la tudd André xam nga ponkalum ponkalum yéefar la André gis nga muy rey André jinne yi dama bëgg ngeen xëccal ma ko mu génne ci biti dañ ko génnee ci biti na tourné na tourné xëccal leen moom tourné na tourné na tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné na tourné na tourné na tourné na ñëw xëcc na ñëw génne leen ko ci biti engrais la tudd. na ñëw na ñëw. xëcc na ji. waa ji xëcc na ji. jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi nga ne nga ne mu ne ba xam dama ko bëgg toroxal jigéen fan nga ko toppee. foo toppee xale bu jigéen bi. fan nga toppee xale bu jigéen bi. ah. seen kër mooy fan moom fu mu dëkk. ah ah man yow laay laaj fu mu dëkk mën nga wax wala mënoo wax caaro kañ nga ko topp yàgg na wala yàggul. Hmm. depuis mu amee hmm. ko topp. nee na ba mu amee huit la ko topp lan moo tax nga topp ko lu nga topp xale jigéen bi. Ah, dafa rafet moo tax nga topp ko. Mm-hmm. nee na dafa rafet moo tax mu topp ko. am nee na xale bu jigéen bi dafa rafet moo tax nga topp ah yow dafa rafet moo tax nga topp ko yow loolu nga gis ah hey mu tax nga topp ko laa wax il est c'est ça maa loolu moo tax nga topp ko ah ok moom lu mu tudd xale bu jigéen bi nan la tudd <laughs> Mariama Siré Diallo ah nee na xale bu jigéen bi Mariama Siré Diallo la tudd léegi yow lan nga ko xale bi ba nga ko toppee loo koy xañ ak loo ko yàqal mu nekk nii jinne yaa ngi jinne yaa ngi ci moom instant nii amul jàmm eh mën nga wax wala mën a wax duma la def ndànk nga ne kenn du la yuuxu yow dañ lay yuuxu force nga wax yow. li ngay bañ loolu lañ lay def nga ne ku fi ñëwal sa bopp yow nee na moom moo fi ñëwal boppam kon yow yaa yow jinne bi yaa ñëwal sa bopp fii defi Maroc maanaam xale bi dafa newoon Maroc ah xale bi dafa nekkoon Maroc ah nee na xale bi dafa nekkoon Maroc jinne bi nee na maa ko wol parce que xam ngeen ne wax naa leen jinne fu mu nekk ci àdduna bi dina egg si fii loolu wax naa ko dégg nga jinne bi moo indi fii moo moom moo indi boppam jinne bi Maroc Maroc la nekkoon xale bi xam naa dafa newoon Maroc xam naa dafa nekkoon Maroc dafa nekkoon Maroc léegi fexe mu génn ci biti waaw fexe mu génn ci biti instant bi moom mënul def dara yaram bi yëpp dafa dee yaram bi yëpp dafa dee Cees moom la mën ngay toroxal yëkkati leen ko mu génn jineen loolu def dara fu mu nekk nii waaw téye leen ko instant bi lu nii la duggee woon leen ko mu def ndànk ndànk waaw ndànk-ndànk bu mu nekk nii mënul def dara parce que instant bi jinne bi moo xam dañ koo gis nga gis nga ndànk-ndànk balaa fët caméra wala fët nangam nangam gis ngeen ko gis ngeen ko mu nekk nii mënul def dara gis ngeen ko ndànk-ndànk doucement doucement waaw c'est bon c'est bon salaamaaleykum wa rahmatulah foofu fu naange amoon yow inna laaha anna laaha bil libaadi bashiran jinna bil libaadi bashiran jinna wonon ko ɓe allah kanta allah mbi kanta mi uttidi to uttidi hakkude ɗe jiti kidon kiti saare woloya saare wonade sunuy kilifa ñoom ñoom kóor waa yàlla nabi yàlla nabi wonande allah alfayi jeyi alfayi watin korjinna jorjinna umri kasa kwa kasa kizikasa kwa kasa za hamsini za hamsini za moroshi za hamsini za moroshi za moroshi za moroshi za moroshi za moroshi za moroshi za moroshi za hamsini za moroshi za moroshi za moroshi za hamsini baadi bashiran kenan boloko be bolote ke talate ke Allah kanta annabi kanta Allah kanta annabi Allah kanta annabi Allah kanta annabi kanta titi to titi hakkude ɗen titi ɗon ko jenna ɗiɗon ko jenna boloko be bolote ke talate Allah kanta annabi

suluhu, mwanao tolute d'accord ah balaa mu yàq ndax li ma yor ci des neer lu yàq dafa bari waaw xaaral ma dem suñu jël neer bi gis ngeen ko day dëgër dëgër lu bopp bu ma ñëwee cocc lay def du gis ngeen jënd bi lu muy def nii yéen a ngi gis day matt mattu bu ma ñëwee lu mu matt da koy yàgg ci suuf mbokk yi gis ngeen su ma ñëwee lu mu matt da koy yàgg day mbuumatam da koy yàgg xaaral ma dem suñu sol suma tënni ñëw balaa sama jeex ne bu yàqu si loolu macha allah ne ne ne neen may rey dama bëgg muy muy def après fu muy mujjee neen gis danga may rey nee na daf may rey. ti ma fay riir ti ma riir nee na nii daf may rey nee na daf may rey boo koy gis ngeen jinne dama koy duma wala ko man duma moromam tu es petit devant moi je suis terrassé le roi haha je suis terrassé Aouda Shakir troisième ambassade Iblis je suis terrassé Mouhmoud Iblis quatrième ambassade Iblis. je, je terrassais euh, première ambassade Iblis. Il s'appelle Seytaane. Je terrassais beaucoup de djinns. Hier ici, tu, tu as, vous hier, euh, il y a une grande djinn qui euh, s'appelle euh, Hamza. Euh, vous avez Hamza ici? Ok. Lui là, il fait rire devant moi. Le khalife général lay génne. le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde le king of the king xaaral ma suuf yi balaa ma yàq parce que xaaral ma suuf yi cinq